boo yi gis ngeen maa ngi fi ak Elzo ki nga xamante ni kenn du ko laajte lan la doon ci Siteu ndax defe naa ne t-shirt yu gars di sol xam nga flocage ak nice gi muy nice yëpp defe naa ne moo koy dóor ñaata ci seen nga liggéey ci combat. non Ouzin ba ma yàlla jël si yéen te bi sant sama ñaari waajur di sant Serigne Touba Serigne Sidi alxuraan bu wér a wér a wér. billaay di masawu tamit waa jàmm gën bu baax a baax si combat bi ñu jóge waaw. no tiset yi non xamatuñu sax lan la liggéey ndax tal duñ ko tal sax normal du dee combat bi moom taluma ko sax normal ndax làmb ji billaay wallaay. naka ngeen waajale si. waaw kon nuñ ko war a waajee rek ndax dafa jóge si loo xamante ne ñëpp gis nañ ko mu war a demaat ci leneen war a wane beneen facette bu bees moo tax ñu ànd ak ay mboqam. ànd ak moom ak ay xaritam dugg fu ñu mënti dugg làmb ji metti torop torop démb dama jooy bañ ma ne Papa Sow na barki alxuraan. fu mu la fekkoon. boobu mu ngi ma fekk si tatu cumukaay bi noonu dama jooy am lu ma metti ñu ne ma lan la ma ne leen làmb ji ñu waaj trois ans si te ñëw képp ku dëkk jàmm gën démb journaliste bi dafa ma laaj fàllu ne ma loo yëg ma ne ko li la xeeñ mbaa xeeñu la. mu ne ma ndam ma ne mu ne lan mooy xeeñ ma ne ko ndam xanaa xeeñu la biir jaam gën ma ne ko du la xeeñul rek da nga soj démb ko soj rek la ndam dul xeeñ jaam a gën billaahi. dañu gis combat bi yàqu ñu ci bàyyi nag nee nañ surtout dootul ba Papa Sow mais euh, décision bi génnagul est-ce que pare ngeen pour bëriwaat ak ak bi Papa Sow gaañoo yéen naka ngeen doon comporté yéen ñi nga xam te yéen a andi woon si. waaw ndax doo gisee loolu dafa am ñoo xamante ne xam nga dara du amee mbir dañ ko war a jàmbat bu baax déglu ñaari camp yi ndax stade ñii dañuy toogee fii nit nekkul tout le temps day fekke dala fay fekke sax waaye doo gis gaañ bi nu mu demee wala dara mais geste bi kuy nit di xool yor say bët di nga xam geste bi nan la demee ndax góor a soog moo fa njëkk moom la ñu njëkk a yónni mooy dem xam nga coow na ak nit ñi ñu téye ko semi di ko andi Papa Sow jóge fële àndaat ak moom ñëw. loolu moo ngi mel ni mooy provoqué coow li nañ waxtaan ku waa tëggkat du yor arme du yor dara mais seen biir ñoom jëluñu sabar yi wala andi ko xeexee ko lépp seen biir la nekk. Papa Sow nag mag la yàq na làmb ji si xelam mu sell xam nga mais bu ñu jël toor bi dañu ko teg. wallaahi bu mu jël. moo yàq la Papa Sow yàq làmb ji. wala yéen a yàq làmb. non Ouzin c'est à démb. ñëpp dañ doon naan Siteu daa war waaw yaru combat mi ay ñàkk yare ko ko xañ ak ay leneen ñu yëpp ko ñu nag ay mboqam démb lu mu def si làmb ji zéro faute sona lu ñu policier solo ñu ñu dara suñu cumbukaay policier yi dañ faa fees dell mel ni agresseur mooy bëre si barki alxuraanu karim Papa Sow am liberté boo xam ne Siteu doo xoolee provocation day am Siteu dugg na si géew bi Papa Sow daw dugg si géew bi te foofu noonu Siteu waroon nañ téye Papa Sow du doon Papa Sow dugg si géew bi Siteu di dem di dugg dañ koy téye làmb ji foofu noonu ñoom mënoon nañ ko provoqué mu yàqu andi na provoqué Siteu faalewu leen dem yoonam mu wut foofu mënu ko am moo tax mu jaaree ko si tëggkat yi dem yow xale bu ndaw bii du ko jëroon ne ko demal fële nele nga am loo fay def am déet mu dem ñu téye ko man ma ñëw maa ko yónni pour mu coow mënul coow man ma ñëw coowal ko noonu la demee daa yónni góor a soog policiers yi téye ko di ko andi moom mu dudul dara sax mu jox cër policiers yi xam ne coow mu ngi fay am téye nañ Gora Sock di ko andi warul jóge fële di daw di gën a renforcer coow li loolu lu mu provoqué la ni daa war a xam am na nag ñu taxaw euh, di taxaw naan ñun ñoo tooñ ñoo def dara ñooy lii mais ku xam ñun làmb coono la si ñun barki alxuraanu karim si te du bàyyi woon làmb tey barki alxuraanu karim ñun ñu bàyyi sax dem stade ndax lii ñu nag moom temps booy la ñu ji ko di ko dundandoo nit ki ku nekk du doonee sa xarit lu muy nekk dañ ko siy jàppale. ñun moo tax ñu koy jàppale fii si làmb ji lii du jeexee doo ñu fi gisee ku nekk da ngay dem wuti ji xool loo yóbbu sa kër làmba tax ñu bàyyi suñuy yite suñu lépp ñëw gunge ko ndax suñu xarit la duñ ko bàyyi mu wéet am déet looloo tax mais làmb coono kese kese la barki alxuraanu karim. du ñu du waay ay ay aj si taak ay ñàkk aj barki alxuraan du ma gisoon léegi ma ne ko mu ne ay bàyyi bëre ma conseillé ko si ne ko mu bàyyi bëre xooli ji leneen ndax doo tal sax sa vie famille lu mu si war a am am na ko si kaar macha allah yàlla dimbali na ko ñun ñoo si des te lii coono la si ñun ñu ñuy dëkkal fu ñu dëkkul di yàq suñuy der rek ñun ay nit yu baax a baax lañ ku ñu gënul gënooñu billaahi kontaan naa ci yow. waaw Ousseyn waaw ak Père Tafa Gueye tamit xam nga moom mag la suñu papa la ku ñu respecté numéro ma ngi dañuy déggante dañuy conseiller bu baax a baax di ñu conseiller si làmb ji mais nit chaque jour coow du amee rek. moom si làmb la bokk tëggkat yi si làmb la ñu bokk tëggkat yi kenn newu leen ñu dagg billet dañ leen invité si làmb ji pour ñuy tëgg am déet kooku si làmb la bokk mais bul taxaw naan tëggkat bi nañ ko porter plainte yow da nga ko war a défendre. du doonee ñeneen a ko wax sax yow mii bokk si làmb da ko war a défendre ne erreur am na wala leneen ak leneen am na mais damal yóbbu ko si procureur talent ko ak leneen ak leneen. moom bëre na fi moom moo Yékini Père Cheikh ñaan bu yëngu leen duggu dugg si biir géew bi dóor Yékini loolu lu ko gën doon risque kooku jàpp nañ ko téye ko est-ce que Yékini doon ngoro tax mu yeggali moom moom mu daw cinq avertissement ñu jox ko xam na ne mënul daan làmb góor da ngay gore. boo ñëwee pour bëre xam ne jekk woo Siteu keroog moo guy gi képp ku dem esaat xam na ne tey Siteu du bisu ndamam mais gore na ba bëre ko ba daanu daanu bi te bàyyi wuñ ko si kuy ñëw beneen yoon ñu jekko la du dee loolu man sama mbër yi ku ma yóbbu xam ne jekk woo man maa koy tay sax toj sa bopp pour doo bëre fekk bàyyiwuñu loolu làmb day yàqu man du ma amee mbër nii Siteu di bëre ñu ne ma tey Siteu du daan barki alxuraanu karim ma toj bopp bi pour du bëre jaral na ma ko man ndax defetu Siteu lu may dégg si àdduna damay dof Siteu duñ ko daanee barki alxuraan damay toog cinq jours du ma génn ndax damay dof ku ma xool day xam ne kii doonatul nit ndax dañuy wër fu nekk di ndamoo Siteu dañuy dañuy jàng école sax ba ñuy jàng suñu miiru école yi dañ si doon bind Siteu képp ku xam Siteu ñun dañuy bokk si ñoo xam ne dañ koy teewal fu ne si àdduna. billaay wallaay mais gërëm nañ leen bu baax a baax a baax CNG nañu àtte dëgg am déet. ñun suñuy papa lañ suñuy lépp ay làmb ji amul kumba am day amul kumba am baay démb sécurité bi dafay doy fii ba estat foo tourné auto policier pour ñoom ñun ay leneen lañ mais sant yàlla ba déggoo fi ay affaires yu ñaaw xama si te ñëw na si jàmm ñun si jàmm fu ñu war a yem yem fa Papa Sow nag def na ay stratégie ba yàq làmb ji buñ ñu ko jiiñ daa yónnee góor a soog góor a soog mënul yegg moom mu ne day yegg par force làmb ji yàqu moo ko teg boppam du ñun kontaan nañ ci yow. waaw fay nañ la